Aminata Fall madame Niane asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci li nga nangu doon sunu ganub suba si tey ci Rewmi FM. yaa ngi nekk secrétaire général bu collectif des parents et amis des enfants de Kër Xale yi nekk nag ab kuréel boo xam ne dafa ëmb ay wayjuru euh, ñoo xam ne daal ay tout tànk yoo xam ne dañoo am euh, li nga xam ne moom mooy autisme tey jii euh, mën nga ñëw ci li nga xam ne moom mooy kuréel boobu ngeen samp ak lan moo ko tax a jóg. waaw euh, maa ngi lay gërëm bu baax ci invitation bi di la wax ni kuréel boobu ñu ngi ko samp euh, ak 2011 ay euh, waajur ñoo dajaloo samp kuréel boobu ngir yaatal tamit liggéey ci ñaari wàll benn wàll bi mooy jàppale waajur yi yeneen waajur yi ci lépp lu jëm ci seen jàngu doom jàppale leen tamit ci wàllu maanaam ay garab jàppale leen ci wàllu transport yi ak yooyu beneen bi te ak tam di dajaloo ñoom di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci ay ñuy wax groupe de parole ba nga xam ne ku ci nekk di nga mën a ñëw wax li la metti ku ci nekk di nga mën a xam ne du yow rek yaa nekk donc loolu ndaje bu ñuy def la bu bu am solo beneen wàll bi tamit ñu ngi koy jàppale centre bi nga xam ne mooy kër xale yi ci lépp lu ñu mën a jëlee ci ndimbal gu ñuy am ak ñoom pour euh, prise en charge xale yooyu di leen utal ay partenaire maanaam di jéem a dajal suñuy doole ba nga xam ne mbirum santé boobu dina jëm ci kanam. tey ñu gis ne autisme nekk na ab feebar boo xam ne ñu bëri xamuñu ko ci askan wi te mën nga ñëw un peu ci li nga xam ne moom mooy autisme pour nit ñi gën koo xam. Euh, autisme nag euh, jafe-jafe la maanaam jafe-jafe nekkin la daal. boo xam ni dinay dal euh, tout temps yi ci lañ koy ci lay gën a ci lay njëkk xale bi boo amee at ak genn wàll wala jëm ay ñaari at ak yooyu ci la ñuy xool ni yenn ni muy demee ni mu war a dundinam ci askan bi dañ xam ni am na ci tuuti ay ay ay jafe-jafe day nekk xale yoo xam ni maanaam dañuy yëngatu ñuy xale yoo xam dañuy yàqu torop ñuy xale yoo xam dañuy wax te loolu moom daf ci am solo trop ñàkk wax bi mm-hmm. wala muy xale yo xam dañoo tàmbalee wax ba pare jekk ba seeg dootuñu waxati muy xale yoo xam dañuy faral di beru muy xale yoo xam ni boo leen gisee da nga naan xëy na dara mi ngi ci ñoom maanaam li nga xam ne moo leen yitteel rek ñoom ci la ñuy nekk maanaam xale autiste mën na jël fii yor benn otoom wala mu yor benn bigam di ko xool wala nekk ci suba ba ngoon leneen du ko yitteel seeni lekkin tamit jafe ak yu demee noonu daal mm-hmm. loolu daal la ñu mën a gën a seetlu ni dina dina kii euh, waajur bi mm-hmm. ni xale bi xaw na wute ak ñeneen ñi mm-hmm. yow nga nekk madame Fall koo xam ni bu weesoo euh, kuréel bi nga xam ne yaa nga ca da nekk yi tamit koo xam ne da ngaa dund mbir mi ndax sa doom daf ko amee mën nga ñëw un peu ci sa histoire. waaw euh, man sama doom bi ma amee at ak genn wàll ci la ñëw seetlu nii daawul woon wax daaw woon wax comme ni ma ko waxee ne la da dana nekkoon xale bu yëngatu da doon def lépp lu nga xam ne rek moo ko neex maanaam dem ci kanamu seetu taxaw di xool boppam moom na gis boppam rek. so ko teree seetu bi sax mën na dem gis lu mel ni objet buy melax wala dara mu taxaw pour rek xool si boppam mhm. wala mu toog ba si yàgg di jooy wala mu toog ba si yàgg di doo xam lan moo ko metti mhm. voilà loolu nag bi mu amee dañoo daal di jóg ni kii daal gannaaw mook ay moromam ñoo nekk te boobu ba tey te ñu ko yóbbu ci école boo xam ne dina fa mën a bu gisee ay yeneen dina wax bi ñu demee noonu tamit loolu la indiwaat directeur daal ñuy woo ñu kat kii est ce que du ngeen seen ndax noppi neex na yooyu mhm. léegi nag bi ñu demee loolu nag ci ñu tàmbalee yóbbu ko fi nga xam ni mooy euh, unité pédopsychiatrique bu kër xale yi bu Fann mm-hmm. voilà loolu daal moo ñu moo mooy li nga xam ni moom moo kii ba ñu jóg commencé prise en charge bi mm-hmm. waaw ta tàmbali tàmbali paj bi bi nga xamante ni euh, yëg nga ni moom dafa ame loolu euh, jamono jooju est-ce que mosoon nga déglu jëm ci wàllu autisme ak yooyu déedéet laataa sama doom di juddu mosumaa xam sax lan mooy autisme mm-hmm. mosumaa xam lan mooy autisme te tamit nangu woon ko tamit métti woon na métti woon na parce que papaam daan na ma ko wax ni ma est ce que doo ko xool ndax amul tuuti ay jafe-jafe ma ne ko déedéet. Mhm. ki dafa yéex a wax rek ak yooyu mais xale bi dara jotu ko. Mhm. dara jotu ko donc papa ji commencé woon am ay quelques doutes. waaw papaam mu xooloon na ko daal doon na ko xool ni kii daal est ce que amul ay jafe-jafe ak yooyu mais man gannaaw loolu mosuma koo dégg te mosuma koo gis tamit mënuma ko woon a tëb tëb. ñu nangu te bi yaay aussi jàpp la ba mënoo nangu yenn yi. dëgg la. Mhm. mais bi nga xamante ne dem na ba nga xam ne loolu dëggu ko dëggu dëggu na ni dafa am autisme famille bi aussi entourage bi réaction bi naka la woon euh, aussi ci côté toppatoo bi yan jafe-jafe ngeen doon jànkonteel mais également ci wàllub jàngam yooyu. waaw jafe woon na nag jafe woon trop ci commencement bi parce que xale yi dañoo soxla ñu ñu ñu ñu ñu comprendre leen maanaam il faut nga mën a dal il faut nga mën a nangu mën a xool naka ngay mën a nekkee ñoom. famille bi tamit li mu si am rek damaa daal di dama cee waxtaan ak ñëpp dama cee waxtaan ak sama yeneen doom yi dama cee waxtaan ak euh, samay mbokk ba nga xam ne ku ci nekk jëm na ko nangu. Mhm. jëm na ko comprendre. lu nekk nag daan nga ko si dégg demal seeti est-ce que amul lu mu àndal ak xale yi dañoo faral di am ay rab ak yooyu yëpp. Mhm. mais loolu yëpp tamit dëgg la mën nga si def ay ñaan mën nga si def ay leene waaye ëppalu ma si. Mhm. ëppalu ma si te tamit bàyyiwu ma wàllu faj bi. Mm-hmm. wàllu paj bi dama koo topp wàllu hôpital bi dama koo topp mm-hmm. voilà mm-hmm. léegi demee ba noonu tamit ñu daal di koy yóbbuwaat tam ci école boo xam ni dañ koy wax centre spécialisé boo xam dina fa mën a nekk moom ay moromam mel ni moom ñu leen di a tàggat ndànk-ndànk parce que ñoom seen um, njàng waroo waruñu cee ëppal waruñu cee séntu lu bari. ndax ñoom da ngay topp ci ñoom rek ba am li nga si bëgg dañuy faral di wax ni ñoom ay xale yoo xamante ne dañuy intelligent maanaam seen xel daal daf leen di wër dañuy am intelligence bu am doole est-ce que mbir moomu lu dëggu la wala ay cliché la. waaw euh, xale euh, autistes yi nag noonu ñu bari noonu ñu wutee mhm. xale mm -hmm. bu ci nekk xale bu ci nekk ak ni ngay ni ngay doxalee xale bu ci nekk tamit ak li nga xam ne moo lay yitteel ay xale yu macha allah yu muus lañu woo xam ni li ci gën rek mooy teel a jóg boo teelee jóg ci ñoom rek da ngay am lu lu lu bari si ñoom parce que lu ñu xas ba jàpp duñ ko fàtte lu ñu xas ba jàpp ñu ko fàtte loo leen jàngal duñu ko fàtte ma yow sa bopp mën nga dem ba soo moytuwul daal di nga réer ci ñoom. Mhm. parce que ñoom seen monde boobu boobu ñu nekk noonu la ñu organiser seen monde ba nga xam ni euh, waajur bu deful ndànk rek chaque bis bu neen nag ñu waneel ñu wan la bu bees bis bu ne ñu wan la seen bopp. Mhm. am na ay ñu war a bàyyi xel lañ parce que am na lu nekk si ñoom lu leen yàlla may daal ci wàllu lu ñu jàpp duñ ko fàtte te mën nañoo sori bu ñu teelee jóg ci ñoom rek mën nañoo sori. Mhm. waaw ñu gis ne li nga xam ne moom mooy euh, ba tey euh, feebar bi bëri na ci askan wi ñoo xam ne xamuñu ko le fait que xamuñu ko boobu day waral des fois stigmatisation bedd bi nga gis xale bi peut-être nga xaw a am nooy comporté moom fekk ne ñàkk xam la stigmatisation boobu naka nga ko nga ko nga ngeen koy dundee yéen parents parents yi nga xam ne yéen a ngi confronté ci jafe-jafe boobu xanaa xanaa muñ rek muñ ak takku muñ ak takku parce que ku ci nekk sa doom ni nga ko téye rek noonu la ko keneen noonu la ko ñeneen ñi di téye mm-hmm. yow yaa mën a fexe ba nga xam ne war ci xale nga def ko yow yaa mën a xamal ñi nga dendal ñi nga ñi nga ñi nga ñi nga dëkkal ñi si mbedd mi nga xam ni xale bi ah wute naa ñeneen ñi waaye xale la comme ñëpp mm-hmm. voilà parce que ñoom yenn saa ñu def yoo xam ni du du noonu am na ci koo xam ni doomam fu mu mësaan duggee ci oto dinañ ko pes dinañ ko dóor ndaxte xale bi leen moo ko yittaloon mooy portable fu mu gis portable dina dem nangu ko dina gis luy nuroo portable sa poche mu dem jëm koo génne ak yooyu comme ça nga ko ni xale bi dafa réew wala fekk na demewul noonu moom gisul gisu la gisul ki moom portable bi la gis. Mhm. kon xale yooyu dañoo laaj ñu ñu comprendre leen. ñu comprendre ne yow muy waajur bi tamit nga muñ te xam ne lu nekk nag di nga ko dégg. Mhm. mais nag comme ni ma la wax rek yow yaay takku yow yaay farlu yow yaay jéem a muñ toppatoo sa doom. Mhm. xam nga comprendre sa doom di dox ak moom di di di dem ak moom ndànk ba li nga bëgg rek euh, yàlla may la ko si. Mhm. bu demee ba nga xam ni yu bëri changé na si moom rek di nga gis ni ñu bëri mën a nangu mais nag dinañ seexlu xale bi lu nekk di nga ko dégg dinañ ko daw dinañ ko tam lu nekk dinañ ko def daal. Mhm. loolu yëpp dañ koy gis mais nag loolu yëpp tamit ñu koy muññoo suñu borom parce que loolu yàlla may rek da ngay nangu. Mhm. Euh, tey jii nii ñaari fan ci weeru avril mu nekk bés bi nga xam ne ci àdduna wax nga këpp moom la ñu jagleel feebar bi nga xam ne moom mooy autisme ngir sensibilisation beeg yu demee noonu ñu gis ne tey fii ci Sénégal euh, maanaam célébration bi day des bu baax du ñuy faral di dégg écho yi trop. Euh, ban plaidoyer ban euh, message ngay yóndee ñi nga xam ne ñooy autorités yi ci côté boobu. Euh, li may wax mooy depuis euh, de, année deux mille quinze ba tey ñi ngi fexe ak bu jot COPEX mi ngi jéem a génnee dara loo xam ni lu jëm ci wàllu waxtaan ci ak lu jëm ci wàllu sensibilisation ci ci handicap bi ba nga xam nit ñi dinañu gën a may nopp bu baax yàgg nañoo ñaan nag euh, tamit suñu njiit yi di leen ñaanaat tamit ne ñun ñi nga xam ne ñooy waajuru xale yi nga xam ne dañoo autiste soxla nañ ko ñu jàppale te ñu ngi koy wax euh, ci journée bi la ñuy profité bi nga xam ne ci ci àddina bi yëpp yëpp yëpp ñoom dañ koy dañ koy célébrer dañoo leen di waxaat ni nu jàppale wan ñu ci maanaam prise en charge xale yi parce que booy seet tamit soxla nañu wàllum paj bi xale yi dañoo soxla ku leen faj te ñi leen di faj du ñu ñii rek dañoo am ay spécialistes yoo xam ne ñoom ñoo war a jublu ci seen wàllu faj xale yi dañoo war a dem jàngi parce que école bu ñu dem ñu génne leen ni kii kan mënu fee nekk wala kii kan dafay tànkal xale yi wala lii wala la kon nag centre spécialisé yooyu nga xam ne soxla nañ ko bëgg nañu tamit ñu ñu baril ko te buñ ko barilee tamit nañ ko yombal parce que centre yi cher na trop fii nii di ko fi mën a am waaye boo demee fu mel ni Pikine wala nga dem Thiaroye wala Kër Massar wala yooyu doo ko fa am xale yi dañuy traîner amuñ fu ñuy jëm. Mhm. soo demee ci région yi tamit pareil kon nag ba pare ñi nga xam ni ñoo leen di toppatoo mooy les professionnels personnel d'encadrement bi la ñoo bëgg gouvernement bi suñu autorité recruter leen vraiment ba nga xam ne dañ mën a ñoo jàpp ci ci ci accompagnement wu maanaam ci toppatoo xale yi daal. Mhm. loolu loolu moom vraiment bëgg nañ ko bu baax. ci wàllu toppatoo boobu xale bi ñan lay soxla ci ay spécialiste. waa xale bi moom dinañ soxla pédopsychiatre bi. pédopsychiatre bi mooy mooy mooy médecin bi ku mel ni professeur Lamine Fall dina soxla éducateur spécialisé dina soxla orthophoniste maanaam kii xool wàllu nopp yi wàllu wàllu wax bi. wàllu langage bi yooyu dina soxla tamit euh, psychomotricien psychomotricien maanaam ki nga xam ne mooy fexe ba ba di ko dalal ndax yi ni ñuy faral di di yëngatu noonu di daw wala ñuy def lu nekk dañoo soxla koo xam day liggéey ak ñoom ba nga xam ne dañu mën a seen yaram ba dal bu ñu xasee ba dal rek ñoom lépp lu ñu bëgg a jàng wala am ci ñoom dinañ ko am mais xale boo xam tout le temps mi ngi daw mi ngi kii doo mën a am li nga bëgg si moom dinañ soxla tamit euh, suivi boo xam ne dafa pluridisciplinaire daal mm-hmm. voilà loolu dañ koo soxla moo tax bu ñu mënoon rek Sénégal vraiment tamit di ñaanal tamit étudiants yi fi nekk yooyu yëpp ñu fexe ba ci wàllu woowu ñu jëm cee yëngatu wàllu woowu ñu jëm ko secteur boobu ñu jëm ci investir voilà wu ba nga xam ne dañ mën a def ay jéego yu bari hmm. parce que xale yi bari nañ fi macha allah parents yi sonnoon nañu bëgg nañ fi ñu jëm amuñu ko personnel bi doyul euh, centre d'accueil yi doyul te tamit euh, wàllu paju bi tamit metti na trop am na ñu jot am na ñu ci jotul hmm. loolu daal ñu ngi koy ñaan autorité yi bu baax di waxaat tamit ni am na ci xale yoo xam ñi nga xam ni ñoo jëm waxamande suñu génnee fu mel ni kër xale yi wala ñu génne fu mel ni caaroy soxla nañu tamit nekk ci def dara Mhm. def dara parce que dina am foo toll foo xam di nga soxla jàng métier di nga soxla ku la jàngal tuuti menuiserie di nga soxla ku la jàngal tuuti nooy dessin wala yooyu loolu bu ñu ko jàppalee xale autiste yi aussi dina tax bu ëllëgee ñu am métier boo xam dinañ mën a bokk ci bi ëllëg. tey jii tamit li nga xam ne moom mooy ba tey sa cas personnel ñu gis ne sa doom am na fukki at ak ñaar euh, macha allah tey euh, li nga xam ne moom mooy. Euh, évolution naka la demee est-ce que am na lu ci soppeeku ci côté social côté jàng bi ak ak yooyu. waaw waaw am na lu baax lu ci lu ci soppeeku ndax biñ koy depuis bi amee ñetti at lañ ko yóbboo faan muy muy muy foofu lañ ko doon toppatoo di ko suivre yàlla def na ci jàmm xëy na wax ji ñëwagul ba tey waaye loo ko wax dina dina dégg mi ngi gën xam mi ngi gën a dal macha allah euh, su bëggee ndax ñoom it yenn saa yi seen i jukko lañ yor mën nga koo sant dara mu bañ taxaw fee mais daal li ñu seetlu mooy ak dal dal daal macha allah am na si wax dëgg yàlla. te tamit euh, yàlla yàllaa ngi ciy def sutura li nga xam ne rek moo moo ci des maanaam am foo xam ne daal di ko fa mën a yóbbu moo fay mën a def jàng dara wala mu fay mën a toog parce que bu wàccee école bi tamit du amati fu mu jëm te ñoom tant que ñu ngi ci biir kër gi rek da leen di delloo ginnaaw fi ne fan yii lii yàlla def ci dëkk bi nii muy muy muy ndogal bu fi bu am corona bi contexte bu métti boo xam ne maa ngi ci masawuwaat addi Sénégal di ci masawu àddina bi yépp mhm. ñun ñi parents enfant autiste yi yëg nañ ko bu baax mhm. yëg nañ ko bu baax parce que xale boo ci gis bu guddee defar na saagam toog bëgg xëy dem école mhm. waaye du mën a dem école xam nga ñii xale yi ñu ngi piqué crise fii xale yaa ngi lu nekk daal mi ngi leen si mën a daal ñuy muñ rek. Mhm. xam ne tamit lu yàlla indi la il foog ñu jëm ci bokk mais c'est pas du tout mais du lu yomb daal. du lu yomb mais man li ma gis daal sama côté mooy wax dëgg yàlla mi ngi am ay ay jéego. Mhm. mi ngi def ay jéego mi ngi tane bu baax des na nag lu bari des na. mais maa ngi ci topp papa mi mhm. yàlla bàyyiwuñu benn mhm. euh, tey jii comme ni ma ko doon waxee sànq mu nekk journée mondiale bi ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi mais aussi parents d'élèves parents yi nga ñaaxaat leen ci ci côté boobu. waaw parents yi sama sama mbokk waajur yi ak képp ku xale téye xale autiste rek mu mu mu jàppaat baax dimbali leen xale yi dañoo soxla ku leen déglu xale yi dañoo soxla ku leen. Euh, ku leen ku leen comprendre xale yi dañoo soxla ku leen muñal ay xale yu bëgg nit lañu te dañoo bokk ci dëkk bi parce que doom bu nekk doom nga kon nag nañu góorgóorluwaat tey xale yi bu ñu tilim bu ñu xiif bu ñu mar nañ leen di defar ba ñu set fépp fu ñu war a ànd ak ñoom nañu ànd ak ñoom ba pare nag di bàyyi ñoom xel di leen surveiller bu baax parce que xale bu dul wax wala xale boo xam ni boo ko defee dara du ko mën a wax xale boo xam ne bu feebaree du ne yaay li moo ma dal kooku da ngay bàyyi ci moom xel mm-hmm. kon nag parents yi nañu a te bañ leen a bàyyi si kër yi bu ñu waree faju ji nañ faju ji bu ñu waree jàngi nañu jàngi autorité yi li ma ciy waxaat rek mooy wax dëgg yàlla ñu ñu ci prise en charge bi soxla nañ ko trop. voilà madame euh, Niane Aminata Fall maa ngi lay euh, gërëm di la sant. ok maa ngi leen di gërëm man. ñu amoon mbégte lool tey dalal la ci suñu invité matinal ci Rewmi may fàttali ne yow yaay secrétaire général bu collectif des parents et amis des enfants de kër xale yi nekk COPEX mm-hmm. di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi amee euh, li nga xam ne moom mooy autisme euh, jërëjëf ñu ngi lay euh, remercier bu baax a baax. maa ngi leen sant di leen gërëm. maa ngi leen sant di leen gërëm. maa ngi leen sant.